auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim sëñ Fallou borom kéemaan ci kàddu gi danga am jafé jafé ci sa wàllub sëy dangaa tit ci soxna siñ lay waja takal takkal ndax dangaa tit ci rapport bi ngay bëgg def ak sa soxna damani rombati rëccu la xati ñak la adresse ba ben la sëriñ damani ko koy waja mani lu tax moy waja mooy waaja ko xam sëriñ fallu kima damani moo ñu ko sa ngeem goor bu am jafé jafé ci walu sey boko sété seetee danga lool damani am na ca ñett yu wuté goor gu tële goor gu gaaw gu ndoxam wut mani goor gu awra Ya? am gatt la te bëgg mu gudd dama ni sans dépend ci yow no bëgg mu toll Serigne Fallou Kéemaan jappalé la ci mani amna ci ñett yu wuté amna ci siro amna ci pëndëx amna itam bu nga xamni sa soko soo ko diwee bëgg mu toll lay toll rax ca doli nak da koy gëna augmenter mani da koy gëna duufal lool Serigne Fallou Kéemaan moy ki yalla may ci walu katta dama ni adresse ba ben la numéro téléphone ba di ñaar woté gaw ci 77 274 29 48 77 274 29 48 wala nga def 76 540 58 88 76 540 58 88 dama ni boo ko rombee da nga sëngeem ndax wàllum kàttan moom kott la ko fi yàlla suñu.

man na sax dem après magal gi lepp lo xam si manam xew-xew la rek ak lu mu mën di don jus Porokhane man nako gungé té li dafa nekk lu bess parce que bo gisee day boisson danaka nit ñi ñu koy naan bariwul té nit ñi dañoo soxla lu naturel mom moo tax nag euh, Porokhane innové Lini en pack pack bo xam si day am bisaab blanc am bisaab rouge am citron am tamarin am ananas li di gëna neex nak mooy ananas citron loolu mom bu ko kenn sacc mbiru poroxaan mais dafa nekk format conservable c'est-à-dire que produit bi yag, a durer xam nga produit citron yo ci gis wala produit melni. Euh, conservation bi du du yag. mais li dang koy tek bu la neexee ni à l'air libre bàyyi ko fa mu def un mois quinze jours Ça ça soko joxe sa gan day gëna neex mais goût bi du changer. mais est-ce que sóoraale ngeen diabète gi bien sûr maam képp ko xam ne si tey def nga sa commande na ah bëgguma lu sucré waaw jus Proxane dana la ma defal yo xam si sans sucre lay don boutique Kër Khadim nek dans la ville sainte de Touba. neexee dëgg xam na ni bu ñu eggee sama nijaay mun nañoo maye foofu ndax sama nijaay amul dara jaaxaar loolu moo tax na wut a te li ci gën a garaaw mooy maa ngi koy woo mënuma fexe ba jot ko waaye nag baax na. sant bu baax. yaa ngi ko maa ngi ko naka dem tey. sant bu baax a baax. nice. nice ni. bon yaa ngi yaa ngi yaa ngi yaa ngi dox heure bi de. waaw seen nga man damaa jógee Kër Mère Fall man ma jaar fi. jaar si la ma jaar fan. fii nii ci gaale bi. man ngay seet si. yow laay seet si. Ah, gis rek. doomu nday non non doomu nday xanaa juum yow it seet si. yow laay seet si Papis. d'accord mais wuyu ma. Hmm? xaaral ma la benn affaire nag. mais si ngeen nekk man nekk ma ci. booy. man comprendre na len bu baax ci nak jàpp ngeen gi ci bir keur gi ngeen japp ne heure bu ngi neex da ngeen dugg lakklu eh xam la ba ngeen xam ko day ay muusi dibité di ngeen ku lakklu du nekk en laisse ndax bu len cëru ngeen fanane joy xol ma eh man ak yeen du gat sa gat sa ma len ëpp doole ëpp len katan te attanoo leen li ma xam la ba nga xam ko que ça soit la première et la dernière fois waxuma lol de sa tank bi di fekki moroom ji naan yaa ngi ñëw ci gaal bi. da ngay déglu ma wax la. non non ma lay wax rek. non non non non xoolal. amul lu ma lay may nga wax déglu ma da ngay déglu ma wax la eh, xam. du wax nga ba noppi. amul lu ma lay déglu laa wax. force da ngay déglu ma man ak yow. ma ne force da ngay déglu gisante ak seetante da ngay déglu ma wax la. booy xoolal man du ma sama ma wax la. déglul ma wax la tiit mënta paase nit di la seet si nga ay yàpp yu nekk sama kër yi. yàpp woowu lijjantiwuñ ko yow yaa taxoon ñu di la seet mais pas ay jigéen ñi nga yow fi nga nekk dimension bobu ñun passé na waxoo oh, loolu ay jigéen ak ay yoy non yow ya fi ne oui ma kan mooy ci yow yow oui mo yow sañ sax mëno yow ba tey nangu naa yow laa tiit yow ba tey nangu naa waaye nga affaire bi du sañse dé way mo rombal affaire bi du sañse parce que yow bu doon sañse kessé yow do tit ah, ci tin nga dëkk rombal jallal na lé mais lu muy ki mu mel ne ku yor xaru saati nii mais yi sañse kañ la xew yi mais xeetu yu la leen la jeex mi xool booy wi ba léegi bu ma la fi gisatee naa la ñuus ni temps faa ma commencé ñuuse quoi booy yi faaw jàpp leen di leen ñuus benn par benn ci bii boo laa njëkkee moom mii jël bi baa teg après. Koura sa nijaay de moom moo doon woo léegi mu ni def leen xaar ba sonn ci gisu leen lan moo xew. wax na dëgg de mais Mara la de Mara daal moo fauché suñu rendez-vous démb. Hmm. woo naa ko ba sonn jotuma ko. alors xaw ma tax ñëwul nag. ca demoo kër maaram këram it xawal ko ba xam lan moo tax ñëwul. dem ko def fa la. yow yaa ngi joxanteeg nit ki rendez gisoo ko di ko woo en même temps di sonné wala même bu sonewul sax nga dem ngàbb sa tànk dem xool lan moo tax parce que nag kenn ku quelque soit fa nit dafay am gàllankoor de. maaraale dew fa te waaj pour dem seeti ji ko ba. pour lan moko té parce que xamna ko ka nek ci kër ga dog moko té kour bal ci nit gis nga doomu adam bis bu yalla sak da nga war fek nit day man ba dotul man nit day dem ba dotul dem nit day bëgg nek ci ben programme ba ci yag mo am empêchement mais du question pour dafa am empêchement rek nga bëgg japp jàpp ci kër ga nga makina nga mais mara bul fatini ne mesure est vacciné nit la koo xamante ni si xam na xàmme na ràññale na kon que yaw ak moom bu ngeen joxantee rendez-vous ba pare ca ñëw rek xam nga ni empêchement la da nga waroon ngàbb sa tànk dem ca kër ga seet ko lan moo ko tey nit da ngay am empêchement bala ngay ñaaw njort ci benn bagage wala ngay ñaaw njort ci benn affaire da ngay dem ba am li nga xam si moom la ñuy tuddi preuve en l'appui waaye bul ñaaw njort mukk ci mbir. ñaawuma njort de li may wax dama ko xam. Hmm. dama xam li wax bu baax. sa kàddu yi ma dégg yépp ñaw ndior tak fi rang la kuro nit ku ci nek yaay jima rafetal sa xel wala nga rafetal say xalaat benen bi ci dole ko mudi di li gën di manqué respect nak modi di yow nga ak sa ndijay rendez-vous tellement foo sa tane mais nga wo ko ni ko tons naa nga ma ken nga waye waro tok rek ba muy taxaw dima wona na ma yow xam nga ni sa mom ñak ci xam te bu yàlla defé nga joxanteeg mom rendez-vous ci diko fu mu jaar dina wota laaj lan moo tax mais da ko waroon woon ni ko nag toos nangam ak nangam. sama xel moo ci génn mu ko fàtte woo lépp ak Mara la dama ko woo ba sonn jotuma ko sama xel bi dem mais xam naa ne Mara ñàkk ñëwam si rendez bi pour ñu dem seeti sama tonton <laughs> kenn rek moo ko waral muy Mara. Coura noo arrêté sa gémmiñ gi ci naaraa chaque jour que jëfee naaraa Nara lan la Nara. lan mooy sa problème ak Nara. yow kay yaa ñàkk bopp ñàkk fulla ñàkk fayda mais naaraa mañ ci lim war a nekk waaye jógal jàll ci biir waaye suñu waxee nga naan ma naaraa naaraa naaraa ñàkk fayda bay bëgg a dee ma lay bëgg a dee mu naan naaraa sauf moom dafa mel ni naaraa sax mënul tëdd nelaw chaque jour ga ca chaque jour ka jëfee ba mu bëggee waxtaan sax ñu yàq sama waxtaan ça maa ngi continuer waaw man kay Nara donc dara méttuwuma mais euh, man pour pourquoi ma nelaw man bi loolu moom may travail quoi lan moo ma nelaw loo. waaw boo sonnee boo tëddee da nelaw. non man sonn ma bu tax ma war a tëdd di nelaw. <laughs> ma diggante bi ma. nara tuh deh nalo aku yang nengai kiri lagi tuh direct nelo lo lu kesi lo dulu nih nara man ayo nyoto waktan bingung juga dem matok deh har kuro gua mah majeliko dong fofu lah gede yek lan dengan nelo dengan tuh direct nelo kon boleh gue suruh kuro dengan tuh direct nelo kuro mom mamai nyemai mau kau Parce que moi, instant bi gisuma ko waaye xam naa ni ma ngay toj dëggantaan quoi. naxar kure nit njaay la du yàlla du malaaka du wàllu day comprendre que danga doon nelaw. Euh, Nara dina metti nag quoi parce que comme doon yow a di yow donc amul kenn ku bëgg joxante rendez ñu fausseté rendez-vous. doon nelaw j'espère dama doon nelaw dama doon nelaw yow loolu nga wax. nekk dama doon nelaw. Nara. ku xam naa ko bu baax a baax gaynde gu tax la déggu jat gis nga kuro ma ma xamoon moment yii gisuma ko waaye xam naa ni euh, nekkul en l'aise quoi en tout cas euh, am naa problème de man lu tax ma nelaw waaye kuro xam naa ne am na problème quoi. yow daal waxoo fi lu dul damaa nelaw danga nelaw kenn teewu la fi kenn terewu la danga tëdd nelaw kon jàppal ni danga tëdd nelaw kuro na comprendre ni danga tëdd nelaw.

activé nga notification yi loolu moo si des bala ngaa dem muy loxo bi jëm ci kaw def ok jëm ci kaw nga cliqué ko wane ni aimé nga vidéo bi te lii nag doo ci fay dara te dinañu jàppale ci liggéey bi ñu dem nga bàyyi la nga takk kuréel nga nekk si jàmm man ma dem bu fekkee maa nekk seen vie xañ ba tey waxuma la ni la yow yaa ñu xam jàmm ko ah presque loolu chaque jour kuréel chaque jour kuréel léegi dama bàyyi yow kuréel nga nekk si jàmm man ma dem. yenn kuréel comme que bu ma ñëwee rek coow commencé am nga am ay problème nekkal la kuréel man ma dem sama yoon lu dul yàlla neen la kon daal. Mm-hmm. da nga maa ñëw. yow ko lu wees ndokkale laa lay def. Ah. maa daan di ñëw sa kër waaye tey seet si nga ma. sonn nag faa ma noppal la saa waaj. bëgg naa ci nag. Ah. ndax sama waay nga. c'est bon mais à part ça te ànd ñaari ñoo koy dox. Hmm. <laughs> mais nag waxuma loolu. waaw ana kii Nabou. ana gan Nabou. loo koy laajee. <laughs> yow sa jikko ji yow man yow bu foofu nga ndox laaj. mënoo jéem a daal sa xel. Hmm. man yoon la man laaj na am na benn suur ñoo naa fekk naa fa. Hmm. waaw loolu tax ma koy laaj. Nabou de tàgg woon na ma dafay dem benn mariage de. Hmm. booy. Nabou daal sama yaay moo xëy xëy rek jël si benn décision kenn. l'encre du juric la ça veut moom nee na daf koy dàq. ma ne ko lan moo tax tegaluma benn région bu tax daf koy dàq. ah daal Fall noonu la demee ah man moom dëgg yàlla su ma ko dàq de waaw ah, ngay hmm. bàyyi ci gàlle bi bul dara am na lu ñuy apporter parce que avant nabu maa nekkoon ci gàlle bi su ma génnee jaay dignité personnalité yi ndab yi may raxas saab yi may nettoyer véranda bi noonu comprend xam nga rek man damaa bëgg sama yaay ak lu ma am dignité dignité personnalité ci mbedd mi su mu duggee moom lu maire bi wax rek ma ne waaw. waaw mhm. ah, ndax tamit. mais nag euh, booy bul ma sànnonko dàq nabu. Mhm. gis nga nabu ku baax la ku yaatu la te baax ci kër gi la te sax daf la arrangé bu baax mi ngi leen di jàppale bu baax gis nga nabu sa tànk wax maire bi ne ko bu mu ko dàq booy nabu bu jógee ci kër gi du baax de. jéem ko tey ci kër gi rek waxtaan ak mère ak noo mën a waxtaan ak mère sa yaay la xamante ngeen te déggoo ngeen te daf la bëgg lépp loo amul ci moom rek ci yow la waxal ak sa yaay mu bàyyi fi nabu ndax xam naa bu baax li ma la wax am na njëriñ seen biir kër suuf mu la dégg ngay waxee nii dafa mel ni yaa quelque chose de tey xel li ngay xalaat dara amu ci de dama xam rek dafa baax te yow sama xarit nga te dinaa war na ma gis lu baax wax la ko saa yomb ba da nga am mat mat xam nga yow sa mat yu bëri nar bi ko dajal daf koy may des fois ay code code 4 code 1 virgule yow dila may ay code 145 ndax xamna do pass do dugal baro da nga dal ci bo xam code code 1 la may fal yaram wuyu yow ya, ak nabu sax yéen kay ngeen minante ba nga koy jëlal défense ni man waxuma la nga wax ak nabu de dama ne maire bi day bëgg dàq nabu waaw moo tax mais waxuma la yow nga jëlal défense nabu non dama ne la ngay mais yow non dilu ma rek nan nga mën a xamee ay qualité nabu nag sa waay <laughs> nabu daa baax ci yéen extra extra li may njor maye sama gaañ nga de mais barki Serigne sadio Mbacké bis boo dof dof loo dof dof lu dof dof bala yaay xool nabu benn bët ah loolu du ma ci wax gis nga nabu am na benn suur mu ñëw gàlle fan mooy may defaral sa yaay armoire bi ñëw gàlle waaw dégguma la si laa ko gisee nag mais man dama xam nit bu ma ne jàkk nit ki rek dinaa ko xam hmm. te baax la ma woon ak yaru ak laabir te loolu dafa am solo trop ci doomu aadama mota tax ma naw ko moo tax bu ma déggee nga ne maire doxoo bëgg tank, dah rek moo ma ne ci sa tànk ndax bañ ndax man dina jema dem gàlle wax ak maire dinaa waxtaan ak sama xarit la sama yaay la dina waxtaan ak moom mu jéem fe bàyyi nabu ndax nabu mom bëgg mom mu génn ben yoon ci kër ga <laughs> dina waxtaan ak mom ah, baax amul ben problème mais mo kula ñawal. waaw sama benn tailleur bu naan Serigne Mau hmm. <laughs> moo sa nga <laughs> waaw gis nga yaa ngi la may defal bu la baxa nga laal de ak ah, nga toog jàngi si woo ko ma lay message nga may wii whatsapp loo xew luy problème ah, sa kanam nga gisuma si feebar de te ngaa wax rek bu dee daa am la na xarit wala kenn dalaa tooñ si classe bi nga wax ma ko ma xam xam moo tax loolu xam ko moo tax ma bëgg ñëw seet si la heure nekkee classe sëy naa rek ngay waxal loolu sax am sama jot. yow waxi Zeyna kon moo tax nga fasal ma sa kanam mu jaral la ngay bañ jàng si Zeyna sama doom bàjjan la xamul kenn si école bi man la fi xam su ñëwee bu ko neexee bu amul ku mu waxal kay am na accès ci man du toog man waxtaan ak man ma miinal ko. mais sa doom bàjjan la sama doomu bàjjan la te sama doom bàjjan kese lay ma sa doom lu ñu sekk leneen moo tax kon ngay bañ jàng si mu jaral la ngay toog doo jàng si ma lay woo nga ma bañ maa ngi xalaat lu ne maa ngi yaakaar lu nekk la nga naa ay waxi Zeyna. Zeyna moy kan Zeyna sama do baña rek la ñu dar mëna mom moom pourtant yeen ak yow ak mom yeen yéenay bok même cœur hmm. lan mo tax bo leen ñëwé classe yow do am sax sama temps oh bébé da ngay comprendre Zeyna dafa timit xamul kenn ci école bi man kessa la fa xam c'est normal ma miinal ko di waxtaan ak mom di ko génné pour muy ko ak classe bi mais lool warul yak dara sama diggante yow jarul ngay jalousie Zeyna sama xarit la sama dom bañal la ñoo bokku lepp mais yow xam nga ni yow la bëgg. kaze na sax dafa doy. Mhm. mais yow et puis sa compte TikTok tay ma duggee. comme jaayloo jaayloo. bah c'est normal parce que xalé man lañ bëgg mais yow xam nga ni yow la bëgg. mais lool man dafa ma metti. mais bu la naqaree man mënuma ci dara kenn ku nekk ci li nga nekk ci lan la mëna bëgg bàyyi ngay def nak da nga bayyi sa taxani nga école ba yow man mu nekk école rek gessu gisuma la lool benen problème la ci man. Senggang njàngale nga wara bay, bàyyi mau moom woon. lan la wax. Ah, lo waaye ñëw fi. loolu laa udah jaga yow te jege nih. ah bari ngay complication te bari problème. ah dofo feeñ na si yow di commencé froissé di jeex génn si li nga nekk mau maa muñ mënuma laa muñ kay. yow sax. am lu ma la bëggoon wax. loo ma bëgg wax te du da ngay rek mësuma la jox. ah. ben xalé bu góor bu soof. ben xalé bu kuñ papis. papis. hawo papis. papis ban hawo ko forien bi nek ci koñ bi. mi ngi non mo waxe mo waxe koku moma sonol tan yi. ci lan. di bëgg fat je tem je bi lan tem di ñew fi ah papis dom na de xana xamul ne ku yey di yey ba yeey yaxu bukki na japp ne yeey nga bu yey yeeykatu yax bu mat yow sama produit nga te papis mom sax man ak mom do te duggante wu ni ni mais il est temps ma woon ko sama bopp yow sama produit nga kula jégué dama koy wàcce tabis bàyyi ko ak man n'est-ce pas numéro bi mlay lay yor nga ko. yor na ko ki defal mako fi am ah, papis dafa xana dafa dof. sama na ma daal. Hmm. Ah, numéro baa ngi mais attends xamula xamoo jox ma numéro rek nga dug composer comme si da nga japp numéro lan c'est non non du lol c'est bébé. lan la kon. numéro li ma sonal moo tax ma jàpp. lu mu lay sonal ba mu intéressé la ngay jàpp numéro jox ma numéro doo jël sa téléphone nga jox ma ko. da ngaa compliqué ko génnee sa xel mi de. papi sax xam naa nu may def ak moom yow yow boo ma de moom moo ma yab moom may dugg ci sama garde xanaa xamul ne yow ku la jege dama koy wàcc. ah da nga ko fa jot nga di. maanaam moom de. Ah. mais ana kuréel kuréel mooy si biir. mu hmm. ah. si jàmm bu si jàmm. moom temps yi dafa calme trop luy problème am. kuréel de yow. Hmm. temps yi dafa toog roxam. ah temps yi dafa calme de doo ko gis mu wax ak kenn day kuul rek. <laughs> sama fan jooj dafa amoureuse rek. kuréel kay mi ngi noonu rek Sëriñ Mara. <laughs> boo ko waxee da xol bi sedd bu. ah kuréel kay. maa rek la nopp. ah luy loolu waaye man la nga nopp. loolu am waaw ah, dof. <laughs> non man nag sama affaire bi damaa jaaxal de instant bi moom booy. ni ngay def nga bàyyi sa yaram tamit. waaw. yow de yow xam bës. ah ah booy. fii nga wax. waaw. boo da ngay nit bu baax quoi. ah man aw ma doole nag de damay man dànk laa mën a bës. D'accord, t'inquiète. Ah, faut... Ah, I'll be there. Thank you. Thank you. Uh.